internet yu Sunugal 24 point net ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci beneen yoon ci seen émission bi la ñu dippee xalima gu ñëw tey ñu ñëw seet siwaat euh, Thierno Mamadou Hadi Kane mi nga xamante ni si woon nañ ko ci njëlbeenu euh, match yi ci diggu match yi mu wax ñu li nga xamante ni moom mooy tukkee ci match yi ñuy dëgmal ñu di si gis euh, ay résultats yi nga xamante ni moom la ñu doon jox ñëw nañ ba si cappaandaw gi cheikh bi Euh, tey nga fas yéene def sa dernière sortie wax ci li nga xamante ni mooy jublu ci match de football yi nga xamante ni moom mooy am ci CAN bi finale Sénégal Algérie euh, Cheikh bi laata boobu lañ lay bàyyi nga nuyoog euh, mbokk internet yi ñu dugg ci waxtaan salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi nit yi yëpp ku nekk fi nga nekk sa tur ak sa sant jullit yi yëpp bàyyiwuma kenn sama taalibe yëpp fu ñu nekkee ak nekkee maa ngi leen ñu di leen sant leen gërëm am na la ñu doon wax ci match yi ñu di ko def di ci gis résultat ba yàgg si cappaandaw gi final bi nan la Sénégal mën a def ba nga xamante ni dinañu jël ndam li indi ko fi alhamdulilah rabbil alamina ñu ngi ko sante yàlla bu baax yàlla boo xamante ne moo am kéemaanam moo am mun moo ko mun a jël mu jokko si doomi aadama waxoon naa ko fii depuis kan bi ñëw depuis bal bi commencé wu ma ne ko insha allah su kattanu yàlla liggéey bu ñu def si géej bi lañ koy dindi wax naa ko fi jox ko firndeel yu leer ñu dundi liggéey bi ba génn may génn di jox jox ay sarax nettal ay sarax nettal ay di jox loolu ba nit yi doomi aadama yépp teg si seen bët léegi nag fii mooy dernier bombe bombe atlantique boo xamante ne bi ngay su ñëwee ba ba ba ñu dem ba mu dem guerre ñu xeex ñu xeex ñu xeex ñu xeex dernier bombe bi boo xamante ne day toj lu ñu def lu ñu ak sa matériel lu ñu andi yépp bii mooy dernier bomb may jox nii waaw tey nag moom dama ñëw pour toj loolu. la lan nga ñu war a mën dëggal ba nga xamante ni suñ ko defee ñu mën a jël coupe d'Afrique des nations. macha allah sant yàlla bu wér bii yoon amul benn sarax. Hmm? bii yoon amul benn sarax te coupe bi Sénégal moo moom. lu mu ko moomee condition. ban condition voilà. xam nga keroog dama génn may nañ génnee nag yi am kilifa bu mag bu nekk si football bi mu woo ma si guddi gi. Mhm. numéro privé. mu ne ma léegi sëriñ bi est-ce que mun ne la daggal billet ñu andi la Égypte suba suba. Mhm. ma ne ko jarul nga koy dagg jarul ngay sonal sa bopp. Mhm. dindi sarax yi rek man soxaluma seen dërëm man joxuñu ma dërëm. dama gën rek dama xam ne ku nekk fi ngay liggéeyee foofu nga waree def baax danga war a baaxal doomi aadama yi mm. ma ne ko dindil sarax yi rek soo dindee sarax yi jarul nga may yóbbu foofu di yàq sa paas ba nga gis résultat bu pare mm-hmm. soo ko gisee nag après nga woowaat ma bu ma match bi passé nag depuis loolu dama duggoon xalwa vingt quatre heures parce que dama bëgg xam lan mooy xaw si match bi mm-hmm. est-ce dina ma woon sarax xuddaam boo xamante ne moom moo yilif xuddaam yi yépp moom moo yilif rawxaani yi yépp moom moo yilif lu yàlla sakku moom mu ngi si al arsh fi yàlla nekk alal arsh istawa foofu la nekk gis nga yonente yàlla yépp xuddaam boobu la lay yàlla joxoon damay wax fii tuuram tuuram dafa araam pour wax ko dafa araam pour bind ko si ilmul asrar si sirrul baatin dafa araam nga wax ko dafa xaar nga bind ko. dama koy leeral tey parce que bii mooy sama dernier vidéo bu may def parce que dama xam ne Sénégal bii suñu nelawee ba jëluñu ko bii bii ah ma ko yàlla de mais du gaawati loolu moo tax képp sénégalais ku dégg vidéo bi danga kaa war a partager parce que ñun ñëpp ñoo war a jóg daanal suñu doole pour am lu ñu yàlla may parce que instant bi naar yi ñetti pays naar yi joxante ñu loxo mooy Égypte Algérie Tunisie. joxante nañu loxo instant bi plus de quatre marabu sont assis en Égypte pour liggéey Sénégal. léegi nag loolu moo tax bu jaral ma tuur yàlla boo xamante ne dafa interdit wax ko si nga xamante ne doomi aadama dafa interdit parce que yonente yàlla yépp bii la la yàlla mayoon. Hmm? kii mooy gu boo xamante ne moom moo président nekk président. xuddaam yi yëpp nekk président rawxaan yi yëpp nekk président malayka yi yëpp moom mu ngi si arsu bi su bëggee wax kum fa yakuun si moom lay jaar kum fa yakuun mu def lu mu ko wax bii bi nga xamante ne bi nga xamante ne yonente yi dankaa donn ba mu ñëw si yonente sallallahu alayhi wa sallam donc ngay dëgg ab waliyu yi abdul qadir jeylaani hmm. yonente yàlla feeñ ko si moom jox ko bii la yoroo bii la ñuy wax kun fa yakun ba mu jógee si boobu mu ñëw ba ci cheikhana ahmad tijani radiallahu ta anhu mu jox ko ko mm-hmm. bu paree si boobu mu ñëw ba cheikh Umar Fuuti yu taal mu jox ko tuur bi mm-hmm. ba mu jógee si boobu mu ñëw ba cheikh ahmadou bamba mu jox ko tuur bi mm-hmm. ba mu ñëwee si boobu mu ñëw ba si diggante El Hadji Seydou Nour Taal ak Baye Niass ñoom ñaar day fanaan fale ñëw si journée bi nekk fii dem fanaan fale donc tuur bi la ñuy wax tuur kum fayakuun léegi nag tuur bi hmm? lii bii yoon liggéey bi Égypte lañ ko war def bii la ñuy wax xalwa 24 heures xalwa 24 heures da ngay bàyyi nit yi liggéey lu ñu liggéey yépp dernière chose yow nga dugg xalwa bi 24 heures moom mooy ñëw yàq lu ñu def yépp mu ngi tudd tuuram maa ngi ko ñëw maa ngi waajal de dama bëgg nag sénégalais ku gis vidéo bi nga partagé ko que dama bëgg mu dem ba mu fekk président Macky Sall Hmm? waa man soo gisee may may may génn di wax tuur bi dafa maa jaral Sénégal jël coupe bi dafa am fu mu yem si man si sinon ma ne la interdit pour doomi aadama wax ko bii mooy clé toute la solution soo gisee nit dof nga bugg kaa wa nga bugg ko nga bugg faj. Hmm? kum fa kuur mu faj tuur bi ngay andi. Hmm? nit su buggee am ay kayit am ko dem na fu nekk. tuur bi ngay andi nit su buggee ubbi entreprise am. nga xamante ne dafa tëju. tuur bi ngay andi. nit lu mu bëgg si am na tuur bi la ñuy wax tuur la clé du monde. la clé du monde. loolu moo tax soo ñëwul ba nga xamante ne fi nga yem soo ñëw ba nga xamante ne nga am xam-xam yàlla moo la koy may bii la ñuy wax ismullahil azam dafa bokkal dafa na ak ismullahil azam. loolu moo tax nag bii mooy tuur boo xamante ne mooy liggéey tuur ismullahil azam tuur ismullahi aawan bi du ma ko mun a wax mais bii nii dama koy jox bala bëgg ñu sénégalais yi dëgg ko ñu dem ñu laaj ko xilifa yi hmm. bëgg ma ñu laaj ko ay petit a de dama bëgg ñu dem laaj ko xilifa yi lan mooy tuur boobu kan mooy kooku d'abord ma ku may jox tuuram fii dama koy jox nag soo bëggee nag sénégalais ku bëgg xam match bi lu muy demee ku bëgg xam est-ce que est-ce que lan mooy xew lu ma xam hmm. damay jox secret bu ndaw ak tuur bi ak tuur bi secret bi mooy. Mm-hmm. demal si alquran nga jël ñaari aaya yu ma lay wax nii. Mm-hmm. nga def ñaari raka. Mm-hmm. raka premier bi nga jàng qul huwallaahu fukk ak benn raka deuxième bi nga jàng qul huwallaahu fukk ak benn soo paree nga ne wa rabbuka yaxluqu maa yashaau wa yaxtaar maa kaana lahumul xiyara subhaanallahi wa taala ammaa yushrikuun wa rabbuka ya'lamu maa tukinnu suduuruhum wa maa yu'linuun nga jàng ko fukk ak fukk ak benn nga jël ko nga def ko nii sa sa sa si sa si sa kanam nga nga nga mën ko si sa kanam nga tëdd nga wax nga wax tuur bii nga tëdd nga nga def yéene maa ngi bëgg maa ngi bëgg yàlla war ma entre Sénégal ak ak ak ak Algérie da nga gis lu leer neñ loo xamante ne du ma gis loolu ngay gis loolu nag tuur bi mun na ko def ma ne la bii mooy solution toute la chose tuur bii mooy solution tout la chose tey nag dama préféré génn fii baaxee ko Sénégalais bii mo bii nag mooy samay dernier émission di génn doo xam ne affaire football. mais wax nga sànq ne am na benn euh, xalwa 24 heures. Hmm. dernière minute bu nga xamante ni moom mooy tasaare bomb yi gars yi placé yépp boobu Égypte lañ koy defee kan moo koy def yow wala. man maa koy def bi amul sarax bii tour bi kese laa bëgg a dem ma bomb foofu. bi bi dañuy dem foofu tur bi dañ koy bind am na atatu bi dañ koy bind boobu ma ko wax boobu sa la bu ma bëgg joxe joxe naa ko mooy liste xaar bi tëddal na xool sel bi li muy wax gis naa gis naa ji tëddal nga xool da ngay gis lu wétlu lu bi lu muy gis waaw tur yàlla kese moo lay yóbbu foofu da ngay gis lu ëpp sel bi lu gis ma ne dama nga def ko jarul Sénégalais yëpp dañuy amul Sénégal ku jàngu man yàlla wa rabbuka yaxluqu maa yashaau wa yaxtaar maa kaana lahumul xiyara subhaanahu wa taala amma yushrikuun wa rabbuka yaalamu xam nga la ma loolu wa rabbuka yow suñu borom yaalamu dama bëgg nga xamal ma maatu kinnu lu denc suduuruhum si sama suñu dënd yi dama bëgg nga nga wan ma ko ma ko wallaay soo defee lii fukk ak benn nga jël tour bi bu ma lay jox noonu dernier bombe bi nga nga jàng ko chaque fois nga tëdd. dernier bombe bi dernier bombe bi. nga nga tëdd. wallaay dernier bombe bi. dernier bombe bi mooy tour bu ismullahi al a'lam boo xamante ne xuddaam boobu moo mën kullu xuddaamin kullu rawxaani moo ko mun. lu ñu diggee yi dafay ñëw dafa leen di bomb comme bomb lu muy bombe ay ay fëtëri yi comme bomb soo délai physique yi nga dem ba ci kaw nga ñëw si benn kii kam nga nga bàyyi bomb bi lu muy dooree loolu yëpp mu yàqu xuddaam bi noonu la mu ne yàq xuddaam yi yëpp luy def ak rawxaani yëpp mooy xalifa kullu ruuxin kullu kullu kullu ruuxaani mooy xalifa kullu xuddaami alors mbokk yi mbokk yi kooku mooy Thierno Mamadou Hadi Kane xam nañ ko ca xam-xam bu sell bi ak wax yi nga xamante ni dañ koy faral di am ak ñun lu bëri dañu gindi ci li nga xamante ni moom moo di am yéen ñi nga xamante ni soxla ngeen ko mën ngeen jël numéro yi di affiché ci baaru écran bi ngeen jox ko moom ngir gën a leerlu ci li nga xamante moom lay wax cheikh bi daanaka émission bi jeex bi. parce que jox ma tur bi d'abord ah, mais tur bi ñu koy xaar. voilà bi ñu def réseau ñu def liste xaar bi ñu xam lu may wax tey tuuy bi mooy yaa sayyidi mutayyiruun kii mooy xalifa kullu général xuddaam kii mooy xalifa kullu général yaa sayyidi mutayyiruun mutayyiruun bii la Cheikh Amadou Bamba yoroon bii la Baye Niass yoroon bii la El Hadj Malick Sy yoroon bii la Cheikh Tidiane Chérif yoroon bii la Cheikh Tidiane yoroon mm. bii la yonent bi ñëw jox ko face à face bi mu waxee gis naa yonante bi face à face yonante bi su la baaxee bii lay ñu ma ne la suufiyanke yi dafa am nekk si ñoom soo xamul ilmul baatin noppil huwa al awwal wal aaxiru wal zaahiru wal baatin yàlla ku mu bëggul doo agsi si baatin bi si zaahir bi nag nga yem soo xamee zaahir téere yi lu ñuy firi yemal foofu soo xamul baatin noppil baatin yàlla moo ko andi mu may ko ku mu bëgg mu tànn la mu may la ko ma ne la bii nag la ñu war a dem Égypte ñu def xalwa man def naa ma war yépp si Sénégal waaw def naa kenn gënumaa bëgg Sénégal parce que lu ma def nii yépp kenn jox ma si dërëm kenn fayu ma si dërëm ma maa du xalam bi si si fale si mbuur ma dindi liggéey bi ma ñëw di tëttal ay sarax bii nag amul sarax liggéey bi dañ tuur bi dañ kaa war a bind si benn adadu joueurs yi moom la ñu def seen tànk yi dañ koy sàngu seen tànk yi su paree ñu dugg xalwa 24 heures si biir Égypte naar yi lu ñu def yépp mu yàqu ko suñu ko defee wallahi alazim coupe bi wallahi alazim waat naa si yàlla coupe bi day ñëw Sénégal suñu ko deful Serigne Hadi xamul dara si loolu. jërëjëf euh, Serigne Hady Kane moom mi nga xamante ni wax dëgg fa na yàlla dañuy yàkkamte ay sorties ay euh, sorties moom saa su ne nii lay demee day wax yenn saa yi ba ànd ak àll cheikh bi émission bi jeex na tàkk. waaw dañ may jëngal na xam nga ñun toujours ñun ak jinne mu tax ñuy tàng. soo gisee ñuy tàng ni jinne mooy dugg si ñun. Ah. du ak loolu la ñu mel jinne yi ñoo ñoo ñuy tàngal. Ah. parce que say liggéey ak ak ismu yoo da ngay tàng. Hmm. waxin bi moo mel noonu. maa ngi wax sénégalais ku gis biir vidéo bi ngir yàlla fekke bugg nga Sénégal gagné coupe d'Afrique mu andi ko fii si Sénégal. Hmm. partagé ko. ku partagé wu ko xam naa yow bëggoo Sénégal. ku ko gis partagé ko àddina gis ko dans 24 parce que xalwa bi ko deful fa dans ah, man day fekk sama liggéey bi yëpp yàqu donc il faut ñu def tout possible pour ma dem Égypte ma def xalwa bi. alhamdulilah su ma defee xalwa bi 24 heures ma assuré leen ko ma buñ ma dox dërëm buñ ma dox dërëm ba ñu am coupe bi seen loxo fii mu ñamaat fii man Sénégal su amee loolu am naa lépp. parce que Sénégal dafa am ay sëriñ ñun tamit sëriñ yi dafa dañu war a génnee suñu xam-xam fekk nekkuñu fii rek di wax il faut ñu génnee suñu xamxam xam àdduna bi yëpp gis lu ñu def. il faut ñu dooru sëriñ yi il faut ñu wan leen Sénégal am na ay sëriñ ay ponkal sëriñ parce que lu ñu am Sénégal la ñu am lu ñu bëgg Sénégal moo ñu gënal loolu moo tax mu jaral ma ma génn ma wax tuur yàlla bu ngande bii maa ngi nuyu bi yépp di leen sant di baal nag si xalifa yi parce que suñu dëggee ma wax tuur bi dañuy mer parce que xam nañu si interdit pour wax dañu xam ne mbëggeel moo tax ma wax ko bëgg ja bëggu Sénégal am coupe bi parce que bii mooy dernière solution doomu tax ma génnee ko maa ngi leen jëggalu si loolu di leen baalu ak di leen baalu ak di ñaan jut jullit seen kas képp sénégalais partage les vidéos yi nga jóg ñu ñëpp ñu joxante loxo comme naar yi ñu def pour ñu mun a jël coupe bi dugal ko suñu réew ñu am dam boobu maa ngi koy yéene képp sénégalais maa ngi leen nuyu di leen sant di leen gërëm allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim